peut dire que c'était abordable parce que sujet yu ñu jox euh, c'était à notre portée puisqu'on l'a vu à l'école waaw mm-hmm. programme bi la non génnu si programme bi sauf que y a un peu euh, un sujet d'actualité qui concerne le commentaire mais en tout cas on a géré quoi selon man euh, commentaire bi laa gis ne woon moo gënoon yomb quoi man moom commentaire bi laa choisir woon moom laa def quoi oui dissertation la waaw ñaar yëpp waaw ñaar yëpp dissertation la beneen bi mooy euh, commentaire bi. Ah, c'était pas trop difficile on a fait notre mieux ñu jàng ci programme jox ñu ko jox ñu leen euh, jox jox ñu leen loo xam ne nekku ci programme bi lépp euh, noonu non amul benn sujet boo xam ne nekku ci nekku ci programme bi. te d'actualité commentaire bi xanaa moo xaw nekk d'actualité affaire parce que ça parle sur la démocratie yooyu noonu ak problème pays bi affaire. épreuve yi jafewul lee dund nañ ko ci tranquillité dugg nañ jox nañu sujet yi xool nañ choisir nañ sujet bi ñu gën a apte pour def def nañ li ñuy def mais sans yi moom lañ bàyyi nañ lépp ci loxo yàlla di ñaan rek réussir no pas stress kay non zéro stress non pas tiit mën moom du ma gaaw a tiit. ren trois sujets lañ joxe ñaari dissertation benn texte mais benn bi ci premier sujet bi ci affaire société lay wax beneen bi ci affaire liberté quoi ak texte bi texte yi moom affaire kii lay wax état état démocratique ak monarchie yooyu man moom texte laa choisir. de mon point de vue c' était abordable météo woon quoi parce que trois sujets la ñu jox sujet au choix euh, ñaari dissertation benn bi texte la bon premier sujet bi dafa porté woon sur liberté. deuxième sujet bi état et société enfin je crois bon texte bi moom jotuma ka xool moom wax dëgg fa yàlla bon man sujet un bi laa tànn parce que man je me sens plus à l'aise si dissertation bi quoi. am na ñu nga xam ne sax ils ont pas terminé leur programme mhm, ça je valide waaw waaw loolu day porter préjudice élèves yi. Mhm. ñu xool nu ñuy organiser. ñu xool nañu ñuy temps bi rek comme ça ñu mën a teel a pare suñu programme def suñu ay révision voilà. ñu yor wàllum njàngi moom chaque jour chaque jour ñu ngi dégg gars yi di leen gën a ñaax di leen laaj ñu dimbale ñu ngir yàlla te xoolal ñu affaire jàng bi quoi jëm kaa toppatoo dimbale booy dimbale prof jàppale prof ñu wàññi grève bi ci état bi la pour man ci état yooyu parce que prof yi bu ñu demee bay grève daa am lu ñuy laaj mais li ñuy laaj leen ko jox. mais tamit ñoom it dañuy dañuy xam ne nag affaire bi fi ñu toll la dañuy yemale mun ñu leen joxandoo lépp mais l' essentiel ñun laaj li ñu leen war a jox ñu jox leen ko ñu jàppale élèves yi ñoom tamit ñu jox élèves yi li ñu war li ñu leen war a jox mais bu dee état bu leen joxul li ñu leen war a jox ñoom ñu jox élèves li ñu leen war a jox léegi état moo leen war a jox ñoom ñu jox élèves li ñu a jox bu boobaa élèves boo ñëwee ci sujet yi nii doo am problème da ngay traité rek génn xaar. peut-être ñu am euh, yooyu noonu mais ñoom dañoo war a xool ne élèves seen seen ay doom ñoo si nekk seen ay jarbaat ay sët affaire yooyu noonu ñoom waruñoo waruñoo xool seulement seen intérêt dañoo war xool euh, li doxal seen réew nga xam ne élèves ñooy nekk ëllëg avenir Sénégal ñu ñu ñu jàppale leen terminer seen programme pour que ñu bañ a problème si euh, pour mën a résultat yu baax waa gouvernement bi moo ci mun dara xanaa à part ñu jéem a jàppale élèves yi rek ah te xam ne tamit élèves yi ñoom ñooy waaw ñooy doomu ëllëg quoi waaw te tamit bu leen jàppale rek jàppale nañ seen avenir waaw. phénomène boobu moom lu doy waar la parce que mën naa ne ministre de l' éducation bi moom moo war a taxaw ci loolu parce que man li ma gis mooy élèves yi ñoom après ñoom ñooy avenir pays bi tu vois moo tax il faut ñu taxaw si ñoom bu baax a baax bon fonk leen xam nga comme sama sama copain bi lu mu ko waxee sànq profit aussi lu ñu laaj nañ leen ko jox parce que ñoom ñoo ñuy jàngal.